asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaar di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk dellu si nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amal seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarala gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 minam dëkk ko mbokk yi <laughs> tey taxaw seetlu bi dama xool dafa sedd sedd sedd ba nga xam ne xawma lan lañ koy méngaleel galaas sax moo ko gën a sedd maanaam Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara Ndiaye yàlla na fanam gudd euh, dëgg dëgg patriote dëgg la ku xam réewam la yàlla defal ko ikma ak balaaxa ak fasaaxa euh, xam nga wax ku nekk xam na ne wax dafa doon mission boo xamante nii ba ci yonant yi sax mission bi jàllale seen kii muy communication da cee bokk koo koo la gën a mën a communication rek moo la gën a mën a récupérer nit ñi ndax li nga war a sonn ci ay at yu bari communication di la koy xëccal ci lu jege dala koy defal lu jege li la sori woon da lay jege moo tax communication ku ko desal ginnaaw rek yëgal na yaa desal sa bopp ginnaaw du caagee nag képp ku bëgg a mu jàll ndax li ngay wax bu fekkee ni yow ci sa bopp santiroo ko moo tax boroom xam-xam yi lu ñuy ñaan dañuy wax ne yàlla na yàlla fecc ci sama làmmiñ ba li ma bëgg a wax te mu doon lu jub yàlla jubalal ma ko te fecc ci sama xol ba leerug wax gi wax di àndaaleel mu ànd ci waaye ñi nga xam ne ñooy dégg wax ji yàlla na leen ko yàlla déggloo te bu leen ko déggloo la cay njariñ ñu jël ko maanaam Cheikh Bara dafa mel ni boo déggee ñuy wax hmm, maanaam euh, li nga xam ne moo di poète euh, dëgg-dëgg daal da koy ñaanal ndax damaa xam ne Cheikh Bara boo xoolee fii nu toll ñi gën a baax communication Sénégal ñi ñi gën a déglu moom ci la bokk te néewuma dañ koo dégg ba noppi waaye dañ koo dégg ba noppi di déggal di ko jottali xam nga yonent bi salaa salaam dafa waxoon ne balli xoo anni wala waaye jottali leen donte benn aaya la jottali leen mais Cheikh Baara moom su waxee ñëpp a koy jottali <laughs> day mel ni balli xoo ji moom ñun ñëpp dañuy balli xoo kee kee partage ko kii ñëw ci YouTube bi ba maanaam day mujj daj àdduna bépp ñëpp di ko déglu moo tax Cheikh Baara dangay ngay xool fii journaliste yi. li nga xam ne journaliste yëpp dañ koo ëmboon téye muy seen kàddu di ci santaas nit ñi di ci di ci di ci yàq nit ñi di ci yàqaale nit ñi di ci yàq nit ñi di ci yàqaaleel nit ñi ba ci état communication da ko ragal daf ko da ko gisoo Cheikh Yérim ci communication la doon chantage lu toll ni ab état mu santaas ko lu toll ni ab état ma jambal jànj ko ci santaas réew de presse yi nga gis ñuy santaas xoolal Ahmed Aïdara bi muy wax fii naa bi muy bàyyi RFM Macky Sall dane ko boo bàyyi heure bi du baax ndax parce que nangam mu ne ko man su ma demee bu ma tàmbalee rek yëf yi dana daal di développé xam nga loolu mooy wane journaliste bu foofu <laughs> maanaam yow nga dem di déglu nit boo xamante ni moo lay communique moo tax Macky Sall bi muy laata jeexal mandaam nee na ñi nga xam ne dañ doon revue de presse ba am ci ay ndombay tànk te loolu jubluwu ci kenn ku tudd Ahmed Aidara Cheikh Yérim di la wax ne la fay ma nangam ma defaral la sa image léegi yooyu yépp ñoom ñii ñu partagé woon ko dafa daje ci Cheikh Bara Cheikh Bara yaakaar naa ne mag Sall du ko tourné wu dëgg-dëgg waaye su ko tourné woon du ko bàyyi mu dugg ci géew bi ñoom danoo nekk ba Cheikh Bara dugg ci géej gi ba lapp ba noppi ñu bëgg ko ci génne mooy tëj bi ñu ko tëjoon kaso jàpp ne bu ñu ko tëjee moom bu noppee dina jeexal su fekk na Cheikh Bara da doon jëlaat concentration ak élan bi mu dikkaatee sax la gën a garaaw <laughs> bi mu dikkaatee ci la gën a da cee boolewaale ñaar xam nga nit ki mën nay wax eh, wax ji baax mais du am xorom du am bayre waaye Cheikh Bara da cee boolewaale bayre boolewaale ci xorom moo tax Cheikh Bara yàlla na saw fan gudd <laughs> xoolal maanaam eh, communication démbam bi te communication bi kat du ci sonn Cheikh Bara buy wax doo gis mu yor këyit gisoo mu bind gisoo dara day dikk jëkk rek mel ni luy meew muy xelli rek day mel ni meew muy xelli rek li muy wax da nga koy dégg danga koy comprendre te day jàll xoolal tey ku mel ni Antoine Diome <laughs> Antoine Diome nga xam ne antuwaan ministre intérieur la woon fii daanaka da ngay mujj ndax antuwaan moo yor porte parole lu bi wala déet ñaari minute jett mu génn def discours wax nangam indi ay aaya fii yëkkati mbaxana mi mbengal ni muy sonne pour am communication bu baax sax doo xam dara du ko am xoola Cheikh Bara li muy def source yi muy gëstu nga xam ne yii mu doon def journaliste yi ñoo waroon a dem gëstu ji indi ay source xoolal nim nu jàngalee nim nu defale portale ci Antoine Diome portale bu gàtt gàtt 2012 fii la Antoine Diome nekkoon benn kër la ko papaam la ko mbakk yu fa aaloon moog yaayam ñu nekk fa ginnaaw bi bi mu faloo 2012 ci la jënd benn kër demaat ci kër mbàkk yu fay jënd fa ñaar cité mbàkk yu fay jënd fa ñaari kër dem mbuur tabax fa hôtel ñëw tuubaa jënd fi kër dem euh, fële nu mu tuddati dem dem xombal jënd fa nàngam xam nga yooyu sëñ bi <laughs> te ni mu ko waxee lépp lépp noonu la dajee ci Antoine sëñ bi loolu xel daf ko mënta ràbb ba nangu ko walla xel nangu ko ba mën a nangu ne nit ki diggante bi wërsëgam mën na fee gaawe nii loolu mënul nekk xanaa ñiy football sax di gañe ay milliards ay millions nangam seen tànk sax mënunoo gañe li Antoine doon gañe te li ci gën a yéeme daf ko blessé blessé xoolal daanaka bu fekkoon ne mu démb waxee Cheikh Bara ji dañ koy dañuy def in dañuy wax ne in la xaw ma in la yaakaar naa loolu leen wax ci titre bi wala ñu réew xoolal site yépp dañ koo jëlal reprendre maanaam site yu mag yi sax dañ koo teg def ko ay débat maanaam site yu mag yi dañ koo tegaat waxib Cheikh Bara ji defaat ci debaa te Cheikh Bara du guleet ci lii de bi fi El Hadj Diouf nekkee demee ca tribunal ba ñu naa El Hadj Diouf nangam Cheikh Bara ne leen El Hadj yóbbu ko de jabaram lan fa pelante woon moo ko fa taxoon a dem maanaam journaliste yëpp danoo jaaxle ne déet lii ñu defe ne affaire Adji Sarr bi wala affaire Mame Mbaye Niang moo ko fa yóbbu nekkati jabaram mu amoon problème maanaam Cheikh Bara moom li koy wax doo xam lu doon danga naa li koy wax raw na montur <laughs> li kenn xamul nu mu toll maanaam xoolal rek ni mu ni mu portelee Antoine tey jii gone Antoine yi fu nekk wër wër ne daanaka dafa mel ni da leen di dóor bomb Antoine xaw mu fu mu nekk mais nekkul lees mu xaw ma fan la la ko la ko message su Cheikh Bara Ndiaye bi fekk mais fi mu ko fekk moom bu fekkoon da doon añ de wala mu doon reer wala mu doon naan kafe wala ataaya kaasu kafe bi eggul de ku ko xool di nga gis restaurant bi mu teg de. ndax Cheikh Bara daf ko daf ko daf ko tiire dëgg tiire bu baax la ko tiire te Antoine dafa mel ni moo nekkoon porte parole lu xew mu génn non état bi nangam dañoo war a xam état du doxe noonu nangam na mel ni ko yaa ngi nii li nga doon jàngale ci état tey bu fekkoon ne lu réussir la loo xam lu état di doxe tey du ngeen wàcc mais li nga doon jàngale xoolal bi muy wax naa Ousmane Sonko te xale boobu ñu doon wax ne xaw ma Antoine dafa waxoon ne xawma euh, bal rey reyu ko nangam te biñ ko kiyee loolu moo ko kii moo tax Antoine sëñ bi seet yaakaar naa ne ñi gën a xat fi ñu ci réew mi ci la bokk ndax parce que ak njub ak euh, kii bu baax dafa am loo xamante ni boo ko manee sax manee ko noonu waru koo defe noonu nii Cheikh Bara wax dëgg dëgg bu fekkee ni la ko mane woon waru ko woon a defe noonu loolu day wane rek ñàkk intellectuel gi parce que dëgg dëgg ma mën naa ko sañ naa ko defe naa ko noonu du danga naa mën naa ko xam naa ko waaye duma ko doxe noonu nii laa koy doxe danga daan gis sunu mag ñi nekkoon fii ñu tàmbali tabax ay juróom benn at wala fukki at yoo xam ne tabax bi du àgg bu fondation daan ne la taxawal ñu demaat set birig ne la bàyyil noonu ba ca kanam nga demaat ci fenêtre ñu ne la xaaral nga raase ñu ne xaaraatal kon ab diir nga raax ba ñu ne la kuule nga kuule ñu ne xaaraatal di ko te pourtant mënoon nañ ko song ci ay kii yu néew def ko mais àdduna moo doxewul noonu nii laa ko mën naa ko def naa ko tey nii ko Cheikh Bara wax dafa ko blessé ba gaayam yi sax communication yi nii def ngay yëg ni lii antuwaan dafa dafa dafa am na ci am na ci kii am na ci blessement bu rëy moo tax gaayam yi jóg <laughs> nga gis nga kii di jóg tàmbali cuujam yu ndaw yooyu tàmbali di ci ci di sàpp man leen ah fu séq sabe de ginaar gu ndaw gu nekk di jéem a sab dëgg xool bi mu wëlfandikoo ci jigéenam bi RTS fay RTS moom doon <laughs> xaw ma heure boobu ban heure la fekk xaw ma ban heure la fekk Thérèse di def dara waaye bu fekkee ne Cheikh Bara nee na da daan jaay ceeb fii restaurant la doon def jàmbaar la Thérèse sax moom wax yàlla jigéen la waaye nag moom it ku wesoon la xaw ma wesoon ku xawoon a ñàng ci nguuru Macky Sall daanaka sax nit ñi xaw leen woon a teg dëgg dëgg dëgg xoolal fii bi ñuy dem fële bi Macky Sall naa du def troisième mandat Thérèse jikk naa li ñuy lam-lamee nañ ko wax dañuy def troisième dañuy def nangam loolu troisième mandat loolu kii la di wax wax joo xam ne kenn xamul mel ni rek dafa toog ci bopp sénégalais loo wax mu génn ne nangam moom Mame Mbaye Niang ak du mbaw sëñ bi mel ni danoo moom nit ñi sëñ bi ay ñoom barki démb ay cuuju ndaw ngeen ay perantal ngeen tey ngeen jikki-jikki ami laaf ba gannaaw ci tiim nit ñëpp ne da ngeen di tiim seen kaw ba noppi bu ngeen tiimee ci seen kaw du ngeen fa def lu du noonu picc yi di def buñ la tiimee rek daal lay waddal dara wala noonu kii yi di def nu mu tuddati Euh, picc yooyu di daw guddi nga xam ne yenn saa yi fu la romb rek dangay ngay jékki-jékki làmb sa fii mu tooy xëpp ay sëñ bi yéen itam moom leen réew mi xoolal treize mu ne su quatre maanaam mille neuf nu mu tuddati deux mille douze treize benn néeg la luy woon moo jëkkëram di fay trente cinq mille tey lim yor ci kër sëñ bi nga xam ne treize ba lu nekk da daan xulo moom Mame Mbaye Niang da daan xuloo ñoom ñaar Macky Sall di arrangé nan la koy lijjantee kan lay jox dëgg ñoom ñaar ñu nekk kii di jël fee kii bi mambay ji yor ministre senes kii jël fee Thérèse Thérèse moom dafa xaar woon pour nekk ministre balaa ma nguuru Macky Sall moom faw mu nekk ñëpp moo tax Macky Sall jox ko kado gis nga fii dem naa Macky koo ni bàyyeel da ngay toog fii da ngay def troisième mandat koo ni bàyyeel ma ne ko Ousmane Sonko la leen di bàyyeel <laughs> Bassirou Diomaye la leen bàyyeel tey la ngeen doon wax fu ne moo tax Cheikh Bara si te Cheikh Bara fi mu toll li lay wan ne communication am ñëpp a ko xamandoo YouTube bu bëgg sa YouTube nit ñi seetaan la nga am ay vie boo mënee am Cheikh baara di ko am lenn kay ngay seetlu yenn tele yi nga xam ne duñ ko jël te li tax jëluñu ko mooy iñaane Cheikh Bara message am jàll mais tele bu bëgg ñu seetaan la di nga jël ñenn ñi nag moom iñaan lañ ko jàppee ndax xeebaate te fekk ki ngay xeeb far yow moo la ëpp communication li nga bëgg. kii da koo yore nga ne nga iñaan ne man duma ma ko invité sama télé xoolal télé yi mu dut dem jarul wax du ma ko tudd télé yooyu fi mu toll duñ ko invité ndax li ñuy wax naa niiwam dafa sori te yow li nga bëgg nit ñi seetaan la ak déglu la nga am ay wil kii moo ko man moom la ko Sénégal yi moom moo koy def yéen ñii toog ñooñu ci plateau bi di mag ay sept personnes dix personnes mennam Cheikh Bara bu ne ñëw na fa wala mu ngeen dikk ngay nekk ci sa tele moom mu nekk feneen moo lay ëpp ay bi yéen yéen set yooyu dajewoo yëpp Cheikh leen ëpp ñu ñu seetaan mais kooku boo demee ba iñaan ba sénégalais yi xam ne yow da nga koo iñaane da koo jéem a xeeb da koo jéem a doyadil mais yàlla doyadil lu ko sénégalais yi doyadi wuñ ko kon loolu sax dafa bokkul ci kii sénégalais yi liñ bëgg di ko déglu mu neex leen loolu nga leen war a sarwi yow mu yor télé yow mi yor rajo mais boo nee kii du ma ko éviter ndax euh, danga nga koo xaw a xeeb wala feeb déedéet njuumte lu rëy rëy rëy rëy site yii ku ci mënoon bis bu nekk nga am seex yaakaar naa du ko kii de moo tax sit boo ci gis fi mu toll mu kii Cheikh Bara lay wër boo ne ko koy wër danaa Cheikh Bara lay wër Cheikh Bara ndax benn dina la jox information boo xam ne ko woon dana tax nit ñi seetaan la dana la déglu te li mu suyee ci usmaan Sonko bi maanaam procès Ousmane songu bi néew na ku man ne tey am na ñu takk ay ministre di ay ndombay tànk suyewuñ ko ci kii te tey ña di ko kii moo tax Cheikh Bara mii war na koo delloo njukkal de bu baax a baax baax a baax nag te loolu waa ñoom song waruñu ci am sentiment waruñu ci am complexe Cheikh Bara mii war na koo delloo njukkal ba Sénégalais yépp xam ne delloo nañ ko njukkal parce que nag da koo liggéey nit nag mënul liggéey di yem ak ki liggéeyut dafa liggéey bu baax a baax a baax a baax beneen bi ci des am na conseil bu am solo bu mu joxe boo xam ne loolu sénégalais yi ñoo koy laaj nee na ñett ñaar yi la bëgg def ko ñu Ousmane Diagne na def ñaar yi mooy na na toj na tëj man samaa ko ci dollil na torturer toj tëj torturer ndax loolu Antoine da ko daan def toj tëj torturer ba nuy jël kër paate paate mais ba ñuy maam paate ba ñuy yàq kiyam bëre bu liggéeykaam nun ko def danoo toj fa mu nekkoon ba noppi tëj ko yóbbu ko Abdou kii mi nu mu tuddati Abdoulaye Touré mi lu mu wax Pa Abdoulaye Touré lu mu wax torturé wuñ ko kon nan ci boole lool nan toj tëj torturé loolu mooy kii bi Cheikh Bara yal na la yàlla defal jàmm euh, macha allah macha allah Tanime TV nag lay xaar di Cheikh Bara Cheikh Bara Tanime TV xaar bëgg na <laughs> bëgg na sa promotion nga ñëw de faaw nga ñëw moom Tanime TV faaw nga ñëw waaw ñu ngi taxaw fi di ñaan yàlla may nu wérug yaram ak wérug diine yaatal suñu wërsëg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 ngir ay xibaar yu wér te wóor